Euh, di euh, Alioune Badara Bey mi nga xamante ni moo jiite euh, écrivain yu Sénégal moom it homme de culture la fonkon lool ki nga xamante ni moo di Alaaji Golbert Diagne papa ñu ngi lay nuyu di la ziar Bey fan yii yëpp ñu ngi lay xalaat ba di la waxtaane ci télé bi li ma wax ñëpp rek laa lay wax Sénégal ñàkk na Ndar ñàkk na waaye yow yaa ñàkk. allo. waaw ñu ngi lay dégg papa man yow yaa ñàkk Sénégal ñàkk. yow yaa ñàkk mag la woon. ko xam en soixante neuf. xam nga boobu du léegi soixante neuf. yàgg na. may joué euh, à Jeanne d'Arc mu reporté benn match Jeanne d'Arc Guété. Mhm. ma am ci ma gaañu foofu am fa blessure ñëw serre ñëw trois jours après. Mhm. ñoo ko ñëw. daal ànd ak kolo. xam ne aussi yàlla ko yàlla yërëm. ñu ñëw seet si moom hôpital muy ko jënd. ngir mën a mën ko mën ko wax. kii sax ñu gaañu ci matt bu mu ñëw jënd te de hôpital la relation yi dafa bu baax. voilà peut c'est un problème avec le réseau euh, papa boo mënee déplacé wu tuuti euh, ñu mën a euh, déglu témoignage yi depuis année 60 yi nga xamante ak Golbert Diagne koy wax léegi nii kon sa xarit moo dem ndax yéen ñaar yàgg ngeen mu nekkoon mag ci yow Alaaji Alioune Badara Bèye ànd bu yàgg jur wóllëre nga dem tey mu dem loolu defe naa naqar mënu koo weesu Euh, euh, voilà euh, on va tenter nañu ko jéem a woowaat mu àggali témoignage yi nga xamante ni moo ngi koy def Alioune Badara Bey sunu waayjur boobule ñu ngi ko ziar moom it yàlla yàlla yàggal taxawaayam te bàyyi ko suñu kanam ba ci kanam baayu Rokhaya maami Mouhamed baayu xadigay Gueye moom it doon def témoignage am ci magam jooju di Alaaji Golbert Diagne bàyyi na fi ay chef d'oeuvre nag Baara Yogo Kumba Ndar Samba Ndar ah, sans oublier Awa Buuru Këram d'ailleurs sax à propos de Awa buuru këram euh, dañuy jokkoo ak euh, ajaratu Néné Komé euh, yaayu Laurent Tall ak Marie Madeleine nekkoon moom itam ku jege lool Aline ku jege lool Alaaji Golbert Diagne moom laa wax léegi ki nga xamante ni moo di ajaratu Marie Madeleine ajaratu Néné Komé di suñu yaay yow nag yaa ñàkk Néné Komé ñu ngi lay ziar bu baax. maa ngi maa ngi mm-hmm. maa ngi ziar. te di wax nag ñàkk nañu. wallaay ñàkk ngeen ndar ñàkk na. wallaay ndar ñàkk na. Pape Cheikh lu naa way neex a wane ba ci dem ku nekk dégg nga témoignage Mangol Ber defal. wallaahi. nee naa leen ñun famille lañu. Mm. kenn la woon lu métti kenn métti ka ca des. wallaahi. Golbert nekk na maire te faluñu ko. Mm-hmm. ndax Golbert bu jëndee mango Ndakaaru sax ndax la ko bëgg lekke ji. Mm-hmm. ñuy ñaan jaan fa mu jëm yal na ko gënal fi mu jógee. Mm-hmm. yal na ko yàlla taxaw. amiin yal na ko yàlla teeru. Mhm. yal na ko yonent bi mu bëgg ci xolam teeru. yàlla bu xaw ma lu ñuy wax. ñun dañoo ñàkk. wax yombul sax ñàkk nañu hmm. ñàkk hmm. ay waay ñàkk nañu tur bi rajo ndar ñàkk na ndar ñàkk na. ndeysaan. ay waay yàlla ko yàlla yërëm waay. amiin amiin amiin ay waay jaay yàlla ko yàlla yërëm. ay waay maa ngi jaale ñëpp di jaale waa Ndar yëpp. di jaale famille am di jaale xale yi. di wax yaay booy Masta. wallaay yaay am na naqar mooy yaayu xale yi moom jaaxaan la tëddee. ah ndeysaan jaay yal na ko yàlla yërëm tas ya. Mm. maa ngi leen di bàyyi yal na ko yàlla yërëm. jërëjëf jërëjëf comme wax yombul yaa ngi ñuy jooyloo sax euh, merci euh, ci euh, témoignage bu gàtt boobu te am solo ci sa xarit Alaaji Golbert Diagne ki démb rek sa njaboot ci fonk giñ la fonk hommage nañ la hommage bu mag ca Grand Théâtre National keroog dégg nañu témoignage yi nga xam ne ni Alaaji Golbert Diagne def na ko donc ñu ngi lay masawu bu baax tey xam naa fa nu koy denc ca marmiyaar ya ca Ndar Euh, foofee euh, dina doon fu mu miin ndax jot na fa def ab sëgam euh, ba noppi itam waajaloon boppam donc ñu ngi masawaat encore waa Ndar yëpp ak kull koo xamee ni da nga nekkoon jegeñaale bu Alaaji Alioune Badara golbeex Diagne Euh, ca euh, Ndar euh, ñu ngi xalaat soxnaam suñu yaay ñëpp yaay booy lañ ko daan woowee yaay booy jàlloo donc moom it ñu ngi koy masawu bu baax ñu àggali wax ji tànn bi ñu doon def ak alaaji Alioune Badara Bey mi jiite écrivain yu Sénégal papa ñu ngi jéggalu xam naa réseau bi moo baaxul woon yaa ngi doon wax lu am solo ci sa diggante ak Golbert mi nga xamante ni mu ngi tàmbali au début des années 60. allo. allo waaw. waaw ñu ngi ñu ngi ñu ngi dégg papa ñu bàyyi la nga àggali témoignage bi nga doon def léegi ci sa mag ji di Alaaji Golbert Diagne. waaw dama wax ni donc maa ngi ko xam depuis soixante neuf. ku yàgg na dans le cadre du sport. tout à fait donc euh, mais mais mu nekk suma mag. quelqu'un bi nga xam ni euh, côté théâtre daf ma apporter lu bari. Mm-hmm. ñu bokk lu bari ensuite daf ma daan wax turandoo. Mhm. ba nga xam ni en deux mille neuf biñ ko consacré bi Marie Madeleine di organiser aussi fanaalu ndar yi man ak moom la consacré ak maître Madické Niang muy ñett fanaalu ndar yi. Mhm. ça c'était en deux mille neuf. deux mille neuf voyagé nañ fii aussi en France. Mhm. mais récemment yàggul bind naa doo notre fils Malal. ni ko journée du théâtre le vingt sept mars bi di ñëw mhm. dañu bëgg consacrer Golbert jox ko le Géew d'or mhm. ma ne ko xam naa ni yaramam neexul mais dama lay demander yow en ce moment nga ñëw représenter ko jël ci des distinction mhm. mu ne ma c'est avec plaisir grand parce que ton tonton parce que fàttewuma ni bi ñu koy décorer di ko jox euh, prix wu théâtre Arcos ah. yaa ma ko joxoon loolu symbole donc loolu le 27 mars bi lañ ko ma far euh, euh, épidémie bi ñëw ak yooyu donc ñu suspendre manifeste mais Golbert daal li ma wax ci moom c'est un comédien accompli un Saint-Louisien bon teint un bon Sénégalais quelqu'un qui nga xam ni dans le domaine du théâtre il nous a apporté, il nous a mm. une nouvelle essence du théâtre c'est-à-dire le théâtre de proximité théâtre bi nga xam ne c'est pas un théâtre d'élite mais c'est un théâtre buy engagé buy impliqué buy considérer les préoccupations de notre peuple en général mm-hmm. vraiment ñàkk nañu ko ko mag ñàkk nañu un grand sénégalais mais surtout un grand comédien et un grand saint voilà merci beaucoup El Hadj alin Badara Bèye mi jiite écrivain yu Sénégal euh, papa euh, ñu ngi lay gërëm bu baax ci témoignage yu am solo yooyu la nga xam ne ni euh, def nga ko ci Golbert 2015 au mois de